kilifa Arabie Saoudite yi pour ñu dellu si gannaaw buñ ko mënoon boyal it bàyyi ko noonu au moins ñu jox ñu benn quota d'étudiant boo xam ne war nañoo mën a ñëw jàpp ci loolu waaye it ànd ak loolu ñu leen jox ndigal ngeen xool ñu ngeen di yokkee eh, ñi nga xam ne ñooy encadrement bi dem de manière officielle waxoon nañ ñu ni 35 la ay eh, jàpp naa ni gën saa tuuti war ngeen ko mën a yóbbu cinquante